julli si yonent bi sallallahu alayhi gis ngeen jamono yu ñuy commencé woon taal dëkk bi ñu commencé ko si cocktail molotov yi ñëpp gis nañu man maa nekkoon cible bi fii à Thiès yéen journalistes yi témoin ngeen force de défense et de sécurité yi témoin lañu bu ngeen xoolee sama permanence di ngeen gis ne sànni nañ fi ay huile et autres mu ngi si miir yi ñëpp gis nañ ko sànni nañ fi ay cocktail molotov ba police scientifique ñëw jël ko au vie au seuil de tout le monde saa taal di am man maay nekk cible bi man munu ma nangu Ousmane Diagne jiital ay ndaw ñu déparé place de France romb gouvernance romb croix rouge romb manufacture ñëw ba sama buntu kër di fi taal au vu au seuil de tout le monde man est ce a toog di croiser bala ñuy taal sama kër wala di attaqué suma kër yaay parce que toog na restaurant bi muy fréquenté ñëpp xam nañ ko gannaaw mairie restaurant bala toog ne moom tribunal lay liggéey dana ma détruire parce que ay collègue ñoo fa nekk bi ma gisee mu posté Facebook di yàq suma der di ma ne dama jël pistolet di ko tiré si ay ndaw ce qui reflète du pur mensonge kenn gisuma ma tiire mais nag am naa droit défendre suma alal ak li ma moom sama kër la ñu ñëw di ko taal ñëpp di ko gis gis nañu safara yi gis nañu lépp ñëpp gis nañ ko vidéo yaa ngi fi kenn gisuma ma tiire mais am naa sañ-sañ li ma yoon may parce que je suis chef de parti politique fii Thiès li leen métti askanu Thiès gis nañ ko man maay dimbale askan bi maay faj buumu gàcce yi moom moom tribunal parce que greffier la fa la nekk ay collègue am ñoo fa nekk la preuve bi ma déposé plainte dañ ko ko informé ne déposé naa plainte moo tax mu déposé plainte mais man mun ta yàq suma der man maa ko gën a lucide maa ko gën a set loxo maa ko gën a dëkk si dëkk bi maa ko gën a jege askan bi te man man du ma traite quand je quand je n'étais quand j'étais président Macky Sall J'ai toujours assumé ma position politique. Tel je suis avec lui, je continuerai à défendre la République, à défendre les institutions la République, à défendre le président Macky Sall. moom nga xam ne suñu buntu kër yi miin na ko suñu bureau yi miin na ko suñu kër yi miin na ko ba récemment dem na encaissé président Macky Sall ne ko gamul fi mu nekk da koy jàppale bi mu jëlee xaalisam la changé version dégg ngeen démb ñu bokk kër kër Abdou Mbow démb wax nañ ko àdduna nga wër la kooku man du ma fréquenté bésodrome du ma naan sàngara du ma fréquenté ay baar dëkk bi laa nekk ku ma gënul fii si dëkk bi gënuloo ma la ma jox naa ko askan bi te tey laa gën a dimbali askan bi ñoom xam nañu ne xam nañu ne daanu nañ ba pare man mënuñu yàq suma der man kenn mënu ma gàkkal mënu ma jege askan bi di leen dimbale di leen taxaw di faj seeni soxla tey ñu xëy bugg a tirimal sama der man sama xeex maa koy xeex te li ma koy ñaan mooy moom xam na ma il a toujours eu une haine viscérale sur ma personne yàgg na maa def combat d'une manière indirecte tey la ko fasal wane ko mais dina xam ne man la ko digaaleel la ma koy ñaan rek mooy suba nee nañ dañuy marche moom na fexee ba bu mu daw parce que il a toujours été au pol poltron bi ñuy jàng lycée dafa musa làqatu def ay jeux suba li ma koy ñaan rek mooy grève bi na fexe suba na ko jiite seen marche bi li ma koy ñaan Ousmane Diagne moom si boppam na ko jiite moom si boppam mu ñëw sama kër euh, su xool na ko jiite rek man loolu laa koy ñaan moom xam na man xam na ma moom si boppam na ko jiite loolu laa koy ñaan na jiite suba marche bi mu ñëw bañ a làkkatu si ay xale may wax père de famille ak mère de famille nañu téye seen i doom ñoom bu ñuy waxtaan si kaw duñ ko fekkee suñuy discuter duñ ko fekkee suñuy raket kilifa yi duñ ko fekkee bu xew jotee ñuy génne doomu jàmbur yi pour ñu leen di rey si mbedd bi man du ma rey kenn de mais am naa droit man sama kër ma défendre suma kër défendre sama bien taxaw sama alal taxaw aar suma yaay aar sumay mag aar sumay rek parce que suma kër la duma seetaan kenn du ko taal comme dëkk bi nag daa am yoon ñu dem si yoon moom taxaw na ne moom moom tribunal ay collègues ñoo fa nekk moo tax lu ko neex lay def toog na restaurant ne dina ma toroxal man ku may toroxal si dëkk bi ndeyam ak baayam judoogul maa ngi leen di gërëm di leen